يا مصطفى من قبل نشأت آدم والكون لم تفتله أخلاقه بك جلدي بك طالب يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندق القليفة صاحب الفائدة التجاني الشيخ محمد المائي الشيخ إبراهيم نيس قادم الأمة تتواي إمام الشيخ أحمد التجاني سيد علي السيسي إمام راتب مدينة باي الشيخ محمد الأمين إبراهيم نيس بابا ديكتا والقليفة صاحب الفائدة دكار الشيخ محمد المكي الشيخ إبراهيم نيس مساء اليوم بدرم بنغ غوفرنر برزون بكولا monsieur Ahmed Tidiane Thiaw préfet bu département bu Kaolack ak mboolem kilifa yi jiite région bu Kaolack Cheikh Ibrahim Cheikh Muhammadul Hadi, Ibrahim Nias. ñi gën koo xam ci Cheikh Baye Aadi Nias. ànd ak mboolem mi mbokkam yu góor ak yu jigéen di yëgal mboolem Maulana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass ak jàngkati alquranul karim yeeg muqaddam yeeg taalibe yi guddi gu mag mu di laylatul qadri gi ñuy amal at bu jot te Cheikh Mohamadul Cheikh Ibrahim Nias di loon ko màggal bi mu fi jugee ba léegi doomam ànd ak gi di ko ko alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2022 ci buntu këram ci Medina Baye programme bi nii lay tëddee bu ñu xëyee 7h danañu tàmbali njàngam alquraanu karim ba 13h 17h ñu noppalu 19h mise en place 19h45 20h45 ñu dog jullit timis amal ndogu yi 20h45 22h ay discours ak i waxtaanu diine 22h 23h xewlu minuit ba 6h du matin zikrullah ñi si rendre hommage alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass Seyda Fatimatu bintu Cheikh Ibrahima Niass ak Seyda Mariama bintu Cheikh Ibrahima Niass xaadimatul Qur'an ridwanullahi alayhim jotaay ba ki koy tëj mooy imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Seyda Alioune Cissé xatmul Qur'an bi mbokki woote baa ngi noonu ci buntu kër Cheikh Mahamadul Haadi Cheikh Ibrahima Niass ci njiitalu xalifaam Cheikh Ibrahim Haadi Niass Cheikh Baye Aadi ñi jàpp ko jeudi 28 avril 2022 mboolem sëriñ daara yi nekk ci Kaolack rawatina Medina Baye ñi ngi leen ciy woo bu ko kenn tardé fépp fu gisee jàmbaar surtout muy doomi lislaam di wax njàmbaar di ko wax te tëral ko ci gëm yàlla kooku dafay daal di am place ci suñu xol